bi nga bi nga indee sa Thiès aussi Saint-Louis bi yeneen élection nationale mu ngi fi ngeen choisir la ville de Thiès kon yéen si ngeen gën a waa Thiès bu ngeen si sant ci bu baax a baax. waaye nag damay wax ne jigéen ma dafa lay yàq ko dem si région ndax koo xam ne kii fii la fekk baax fii la tekki lu mu am yéene ko Thiès lu mu bëgg yéene ko Thiès kon bu ngeen ñëwee ci dëkk bi Thiès du ma defar ne kon gàcce gaalaama.

bu ñu bëggoon a wax bari na lool te intervenant yi bari gàtt yi tamit solo nañ wax dëgg yàlla parce que dañoo jaar wóor au niveau de Thiès am nañ caravane bu ñu war a def war a def ci ay daara war a structuré ba pare ñu war a delluwaat Dakar loolu dafay nekk coono moo tax daal ñu bañ a guddal lool maa ngi sant kenn ko ci nekk ñëpp ñi nga xam ne tamit ñu ngi bokk ci organisation bi affaire bi mën a mel nii ñoom tamit fàttali ñu leen di leen sant leen gërëm bu baax ngeen baax asalaamaaleykum wa rahmatulah. koɓeɗo arata ko arata kosomo moy jaay mo jaayiran ko ñanta maali mbaala jaayiran ko amicale des femmes de la poste ñu leen di nuyu kontaan seen mobilisation bi accueil bi neex na vraiment ñu leen di remercier bu baax a baax amicale des femmes de la poste ñoo fi ñëw tey seen doole directeur pour ñëw nuyoo ngeen waxtaan ak yéen dem ci yenn daara yi ci daara yi ñu choisir ci àtte pour dem defal leen ay doom di file nag bu ñu ko defee ba tey dafa ñëw ni yéen jigéen ñi mën a yéen a fan te dellu benn yoon ginnaaw lu ñu nekk mi ngi ci nekk su ñuy amee fit tey bay def bi si ree tax si ree su ñu ñëwee ci ñu ku ngeen doo ci moo ñu jàppale moo ñu jàppale poste bi te ñu koy ñaane yàlla mission bi ko présenté yàlla na ko ci yàlla may ndam bu weesu jottam ndamam na suñu ndam ñu wàcce bi mu jàppee ba tey si ree amul tànk ginnaaw day avancé rek lu ñu dugal lu ñu wax ba leen yegg ni mu ne googu jàppale ni kay nag di def mu ne ak yoo xam ne day avancé poste bi kanam ñun loolu la ñu soxla ci poste bi ndax ñun poste bi la ñu xam boo def ay analyseur bi lu ko jëmale kanam rek mooy sa intérêt si leen baax na jullite na te lu mu wax nag dëgg la si moom du wax di dellu ginnaaw ñu ngaa ñu ko ñaanal yàlla te fi ñu ñëwee ba fi fekk fa ay mbokk yi nee na ñu suñu leen baax na demal ko sa ay mbokk yi li ñu ne waaye bu ñu ko defante ni ñun xam nañu si rek nit dëggu la di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla oyofal yenn bi fi mu mën a demal ko yàlla na ko yàlla yeggale voilà maa ngi passé la parole à la te tey jii nga xam ni bésu 8 mars la moom la ñu jagleel jigéen ndaxte booy may doxal sama bët ci saal bi rek da ngay gis jigéen ñoom ñu ëpp xam ni kon jigéen am na pour ñu teg wante xëy na am na loo xam ni mën nañ ko waaye lépp lu ñu mën a am di ñoo ko mën a xeexal suñu bopp din nga jot ko tey jii nga xam ne nag tey la amicale des femmes nekk ci biir poste bi ñëw fii tey tey ci Thiès ngir seet si leen tag-tagal leen sant leen te gërëm leen ndaxte bi ñu agsee fii ci Thiès gis ngeen ni nekk teeroo

gen andak mom gen andak mom ci régional yi gen andak mom ci municipal yi gen jàppale ko te mu ci yéen parce que yéen ñi nga xam ne tey yéenay xale yéenay yene yéen yéen a mën a jëmale Thiès kanam ci Thiès soxla na leen parce que ni xalé xale ni avenir de ci Thiès yéenay avenir de la nation kon nak tay wa ci Thiès sant nañ leen gërëm nañ leen ñuy gërëm itam seen coordinateur moy Modou Fall Modou Fall itam. jàmbaaram ndax am na lu muy joué ci biir poste bi Modou Fall jërëjëf jeune nga dañu ñaan yàlla li nga xam ne moom rek moo mën yal na la yàlla may gudd fan ak wér te jox la kattan parce que boo amee kattan di nga mën a jàppale Siré Dia monsieur le directeur régional yow tamit ñoo ngi lay nuyu di la sant waaye damay beral jigéen damay beral nuyoo itam jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir poste bu Thiès bi di jàppale Siré Dia parce que jigéen bu mu nekkul rek du sax dara lu baax. kon nag yéen waa Thiès tey li tax ñu ñëw tey moo di directeur général de la poste dafa am fu mu teg jigéen ñi loolu moo tax tey ñu ñëw indi suñu asaka yéen ndaxte moo ngi si jàppale jeex tax pour ñu ñëw fii ci biir Thiès ñu am rek ñuy ñëw di ko jébbal daara yi ñu ñaan yàlla li nga xam ni moom rek moo mën yàlla jàppale te yàlla dippal kon nag waa Thiès maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. muy amicale des Amazones postiers de Siré Dia. keroog bi ñu falee Siré Dia chargé bi ñu yónnee de wan ñu projet bi yàlla na ko yàlla defal tax ma wax loolu. dañu daloo tey jii daloo boo xam ni association des femmes de la poste direction direction nationale ñoo ñëw Thiès tey indi seen terrain. baleen loolu di xew nag alaaji maa ngi jërëjëf sàmmkat mbott moo xam mbott bay toog ak bu dul toog moolu faay da sàkku mu laa wax xayran dañ lay ñaanal yàlla yàlla bi yàlla ko yàlla wala sax waa Papas ñoo ngi leen di gërëm di sant gis seen taxawaay wax bii may wax na dama koy wax ci turu retraité région Thiès Ndoko Baye Diouf mooy président man maay secrétaire général ñu koy sant yàlla di leen ñaanal yàlla yal na yàlla ombat leen leen jàppale leen seen ay borom kër leen seen ay doom ba ngeen retraité ko fekk si lu yàlla am na ko mën na ko yàlla ko defal ci war ma Rasulullah wax ci sama wax toujours man postier boo ko dee ñaan. na nga ko ni ko yàlla boo am ndogu xaalis aussi boo ko dee ñaanal na nga ko ni ko yàlla boo gis ndogu xaalis da nga ñëw ko si ko doon dépense da nga ñëw ko si woon. sëriñ Babacar loxo ca kaw. mbaa nga bëgg sa yaay ñooy fàttul sa loxo. dootoro. waaw waaw É

travail, il a toujours œuvré qui est le débat entre les responsables de Thiès et entre les responsables de la Et c'est vraiment rapport à ça que j'ai nécessaire d'accentuer mon déclaration sur la vérité pour vraiment les responsables de la terre et aussi pour la région de la Bosse. Et vraiment, je tiens à dire que si aujourd'hui il y vous avez cet événement majeur qui est aujourd'hui à Thiès, c'est la venue des femmes là c'est par rapport à ces relations vraiment particulières, cordiales et sincères qu'il incarne avec tous les postes du Sénégal. C'est pourquoi on ne cesse et on ne sera jamais de remercier, mais on ne sera jamais de remercier le président Macky Sall qui a mis à la tête de la poste un digne fils de Thiès, qui vous nommer le Président de la poste du Sénégal. Voilà, on a ce n'est pas M. Sérédia qui sera candidat à Thiès. C'est les Thiessons qui ont demandé à M. Sérédia. Vu vraiment ce qu'il est à travers sa ville, ce qu'il est à travers la poste. Parce qu'aujourd'hui à Thiès, quand on parle du sport, vous êtes, vous êtes censé le savoir. Quand il y a eu un national à Thiès, qui a pris en sa tête c'est cette année C'est le président de la poste. Quand on parle de la lutte, c'est la poste qui sponsorise en général tous les promoteurs euh, de lutte à Thiès. Quand on parle de combat, c'est lui en général qui, qui, qui sponsorise les lutteurs quand on parle d'emploi, aujourd'hui à Thiès, il y a un livre qui est là, qui Sénégal. Par rapport à la station qu'on occupe, on a vu que régulièrement, par rapport à ses capacités à la poste, il essaie d'embaucher des jeunes de, de, Thiès. Par rapport à l'assainissement, si vous voyez euh, l'avenir à par rapport à ce qu'il a œuvré là-bas, nous avons jugé nécessaire de porter sa candidature, par sa droiture, mais aussi par rapport à la rupture de l'incarne à Thiès. Parce que aussi à Thiès, qu'on ne veut pas, c'est ville vraiment aujourd'hui est par des gens qui les détiennent depuis 12 ans. Et après 12 ans, deux mandats, vraiment tout tiers aujourd'hui c'est qui ont échoué. Ils ont échoué, donc le problème c'est pas si on va le trouver ou pas, mais le problème c'est sera le futur de Thiès. Et Inch'Allah, nous, on compte cette candidature. mais nous tous les questions que tu responsable de la ville assurés autour de lui. Car il ne fait, pas partie de tendance, donc par rapport à la situation, c'est l'élément rassembleur de la ville de Thiès. Donc parce qu'il nous, nous lui avons demandé Gogo, sa candidat passe Parti à ces élections locales. Et quand vous avez vu durant Gamou de Tor, tout Thiers était sorti à, euh, euh, à, la sortie pour le fournissement du président Macky Sall, c'était à travers le de la France. Donc à ce titre, nous savons que politiquement, il y a une assise

ñëw Thiès dajaloo ñu sargal seen directeur général buñ ci paree li nga xam ne ñoom seen kees lañ ko jëlee mu seen am am seen yéene ñu ànd ak ñoom dem ci ay daara ay mel ni Mody Diallo dem ma nekk nag aussi vraiment du Sénégal am trop sa moom ci waxam mais waa waa amicale des femmes lambus ñoom ñoo ñëw vraiment ne dañ ko ci yenn ci kilifa yi dañ si ñoom bu tey incha allah directeur général su yeneen kilifa yi dana seeti ziar leen yóbbul ay ndimbal ndax ku wax Sénégal ndimbal ngay wax bu dee sport la ndimbal ngay wax bu dee bu dee bu dee assainissement la ndimbal ngay wax bu dee emploi la ndimbal ngay wax te aussi dëkk loolu loolu moo ko lal kon à ce titre ñu leen di